duggee Sénégal ak léegi def na ñetti weer ci saase dafa joxe ndigal chef d'entreprise buy yëngu ci tante ak sono ak bâche nga jege maire wala préfet wala sous-préfet ngir bagage yi bañ te duñ ko def duñ ci def poste de santé ak ñi nga dañuy sociale ngir bañ nit ñi di tàncaloo teewul jël nañ ci suñuy xaalis jënd ay masque ak gel di jàpp ci xeexu Covid 19 waaye bi yëf yi yàggee gis nañ ci sunum xel àbb bi nu àbboon banque te fay jaadu ci bagage yi magasin yin ko luye te weer ak moroomam dafa xat te fay jaadu ci rawatina employé yi nga xam ne danoo nekk ci sunu loxo te war leen a fay. te feebar bi jugeegu fi ten gis njiitu réew mi ak kilifa yi nga xamee ne ñoo nekk ci wetam am na lu yaatu lu nu yog lu yegg ci mille milliards te ñi ngi koy séddale ñu ne kenn gënu noo yey ci ñi ni sédd moo tax nag ñuy yuuxu ngir njiitu réew mi ak ministre yi nga xamee ne danoo yog loolu ñuy wax koppar yi ñu bàyyi xel ñi nga xamee ne ñooy yëngu ci bâche ak tente ak sono ne ñoom boobaak léegi ñi ngi def te yàlla tax waaye seen man-man mi ngi bëgg a jëm suuf ku nu fàttali ku nu jël ndax ñoom saa bu nu génne di xew nun ñii lañ fay fekk te dañ koy taaral defar ko gàttandu leen bu ñuy dem seen xol sedd kon ñoo ngi ñaan njiitu réew mi mu woonu wala mu boole noog ay ministre am ñu mën a toog leeral ko jafe-jafe yi nga xamee ne mi ngi feeñ ci sunu liggéey. ñàkk nañ ko ñoom ñi nga xamee ne kenn ku ci nekk responsable nga ci entreprise ba nga ne concernant les quarante cinq départements du pays boo koy xool ci ñetti weer yi ñu toog liggéeyun weesu na ñaari milliards ak juróomi téeméeri million ak lu teg